jërë ngeen jëf mbokk ñu topp ci M27 TV ginnaaw bu leen yoo ba noppi rek ñu daal di ñëw ak ci élection anticipée euh, di élection législative yi ñu war novembre bi nga xam daal ci la ñu daal di wutali euh, lii nga xam daal moo di rek it euh, liste yi daal di ne rek génn ak ko lissi bi nga xam moom moo di bu Pastef xam ngeen ne kooku di Ousmane Sonko moom moo ko rek daal di jiite ñu teg ca ki nga xam daal moo di rek it Mbène Faye Saliou tegu ca ki nga xam daal moom moo di rek it mairie Euh, ma mari Mame Sidibé daal di ñëw moom it euh, waaye euh, bokk na ci liñ ci seetlu daal ci list national boobu rek it mbooleem ñi nga xam daal ñu bari ci da nekk ca nekkul rek ñi nga xam ñoom lañ gën a miin maanaam ponkal yi defuñu lañ ca liste boobu waaye a Bousso moom ak Serigne Bara Ndiaye ñoom daal di lañ leen ca def ak ku ca mel ne Duwaye Alla Kane ñoom it daal di lañ ko fay def ak ki nga xam moo di Ami Dia Ami ja soxna naa moom it ñëw na ca boobule rek it liste kii la liste Dakar ñoom Abbas Fall moom moo rek daal di jiite eh, liste eh, Pastef boo xam daal mi ngi ci diwaanu Ndakaaru beneen liste bi ci des rek it euh, bokk coalition bi nga xam si Macky Sall moom moo ko rek daal di euh, jiite Macky Sall moom moo daal di ñëw jël première euh, place ba waaye ñu gis ne ku mel ni ci Abdou Mbow moom mu nga ca juróom-ñaareelu rek it place ba Mamadou Mame Diop mi nekkoon président assemblée nationale moom moo daal jël rek juróomeelu rek it boobule place ci liste bi nga xam si nag lu bare bari ci ay leader yu nekkoon APR moom. Euh, mujj ñu nekk ci lissu APR bi waaye dañ ñoo leen a gis rek euh, lissu amaru Ba Amadou Ba moo leen rek daal investir Euh, Barthélemy Dias moom moo daal di jiitu ci list bi nga xam moom moo di rek euh, taxawu wallu Sénégal euh, moom moom mi rek di Barthélemy Dias Barthélemy Dias moom moo jiite Anta Babacar Ngom moo jël ñaareelu place ba Cheikh Tidiane Youm jël lii di ñetteelu place ba Déthié Fall moom xam ngeen ne juróomeelu place ba nekk Pape Djibril jël juróom ñaareel ba juróom-ñetteel ba ki nga jaal moom moo ca nekk moom moo di rek it Maymouna Sow Euh, ki nga xam si nag euh, moom moo di Bougane Gueye moom ma nga ca fukkeelu place ba ak benn xam ngeen ne nag ñeenti coalition yi moom mooy coalition yu mag yi Pastef bu Ousmane Sonko xam nga ne bu ñëwee jàkkaarloo Macky Sall jàkkaarloo ak ki nga xam moo di Ba muy ñeenti coalition yooyu moom mooy ñi nga ñoom ñoo ëpp doole daal uh, ci lii de léegi yooyu la élection Amadou Ba moo daal di jiite rek it uh, coalition am waaye it uh, ki nga xaaj si nag nemmeeku nañ ko bu baax a baax muy Sahara Iyane Thiam moom juróom-benneelu rek it place ba ci lañ ko rek daal di yóbbu waaye nag bu ñu xoolee ci ñu mel ne ñoom Diop si. ñoom ñëpp rek daal di nañu ñëw ci list bi nga xam ne si mooy list bu amadu Ba bi Euh, liste Amadou Ba bi nga xam si ne moom it euh, moom la daal di indi waaye at euh, ñu ca bari ñu ko daan jàppale ñoom it dañoo nemmeeku ne rek daal di lañ leen fa ku mel ne ñoom Samba si gis nañ ko Omar Sow bi miin ko bu baax baax ci réseaux sociaux yi muy jàppale Amadou Ba moom it dugal nañ ko seen liste nationale boobu moom Amadou Ba. Amadou Ba ba tey listam xam ngeen ne ñu ca bare bare euh, ñoom leen yóbbu rek ci liste département yi bu dul fàttali rek na ko mel ne rek Macky Sall moom bokk na ci ñi nga xam si daal di euh, euh, ñiy jàppale Amadou Ba moom Amadou Ba da ko rek daal di dugal ci ay listam kon bari na ci daal euh, ñu nga xam ne si ay Birima Ndiaye gaa yi ngi naan dégg fii yëpp ñoom ñoo nga ca ku ca mel ne rek it euh, Madiambal Diagne moom lañ jox quinzième place ba ba léegi moom it mu ngi ci listu Amadou Ba boobu jërë ngeen jëf mbokk yi ñu topp ci Info 7 kon loolu lañ leen doon indi rek ci ay xibaar aju ci wàllu liste yi nga daal génn na liste yooyu nag euh, génn tey Euh, am na ci lu yoo xam si daal euh, normal yi normalu nañ moom am nañu droit daal di koy rek contesté fële ca conseil constitutionnel conseil constitutionnel am na ñetti fan pour rek daal di leen rek euh, tontu kon jàpp leen daal fii ak ñetti fan liste yi nga xas si ñooy officiel yëpp dañuy rek daal di génn ñu mën a xam nag ñi nga xas ñoo war a dem ci élection yooyu liste yëpp ko koo xam gis na ne kii de bokk na ci te waru ca bokk it am na droit dem daal di wax ne kii de. dugal nañ ko ci liste yi jàll na fee waaye nag warul mën a jàll ndax waru cee mën a bokk su ko defee conseil constitutionnel dina saytuwaat loolu su fekkee dina warul jàllit moom dina ci daal di rek dikkaat kon daal mi ngi noonu loolu moom lañ jotagoon a amagoon ci ay xibaar ci yi nga xam daal daal dinañ jot a wàcc kon jërë ngeen jëf loolu moo nekkoon rek euh, xibaar yi leen doon indil aju woon ci wàllu législative euh, yi ngi war a wutali di élection anticipée le 17 novembre 2024 kon nag euh, jaa ngeen jëf di leen wéy di topp Info 7 pour ngeen mën a amaat yeneen xibaar jaa ngeen